tey euh, directeur général bu ak ACBEP euh, mooy suma mag suma xarit Amady Dieng ak président du conseil surveillance bu ACBEP muy suma xarit Baba Ndiaye dañoo jàppoon ni fukki at yu nga xam ni ACBEP am na ko parce que ak ACBEP ñu ko créé en 2011 ren ji moom fukki at ñu bëggoon saytu fukki at yooyu du feete sax fukki at yi mooy xool euh, li ñu defagum fi ñu jaar tey li leen dese ak fi ñu jëm ñu bëgg ci xalaat ñu jagleel ko nag bës bi ñu jagleel ko président de la république buñ ko jaglee président de la république moom mën a ñëw fii man en tant que ministre toogal ko fii teewal ko fii ci seen i activité ñoom ma leen di féliciter parce que anniversaire yi d'habitude ak puukare lañ ci doon def waaye ñoom anniversaire bi dañoo neen nañ xalaataat ñu def ay panel oote ñi nga xam ni seen xam-xam mu ngi jëm ci bâtiment mu ngi jëm ci construction ñu ne nañ waxtaanee suñu bâtiment yi suñu bâtiment yi naka lañ koy defee ci réew mi président daawoon na wax ni sax mu jël exemple ci lycée yi lycée ay lycée Malick Sy ay lycée Valdiodio nee na boo xoolee bâtiment yooyu ak léegi suñu lycée yu bees yi dafa wute ci ci ci rafetaay mais aussi ci yàggaay loolu nag directeur la directeur la construction moom directeur général de l'ACBEP jàpp ni loolu tam war nañ cee xalaataat nañ xalaataat suñu batiment yi est-ce que méngoo suñu aada est-ce que méngoo nag lu nga xam ni moom la la ñuy def gën a def lu gën a baax ci àddina ak li gën a rafet ci àddina buñ ko waxtaanee ba pare na ñu xoolaat itam ñoom seen bopp coono yu ñuy daj ci bâtiment yu nga xam ne dafa éparpillé wu parce que tabax am na ñoom lu ñuy tabax te mu nekk lu baax am na yeneen ministère yu yore tabax naka la ñuy def parce que état bi benn la te kenn rek mooy définir la politique de l' état muy président de la république dénk leen loolu naka la ñuy def ba loolu yëpp ñu mën koo dajalaat d' accord nañu ne gaa ku ci nekk mën nga def li nga mën waaye liggéey ki ñu ko jox moo ko yelloo ma ne la nag loolu baax na loolu rafet na ma ñëw jàpp gën cee jàpp parce que loolu mooy suma rôle suma rôle mooy jàppale leen ci li ñu nekk ñun ñëpp ñu jàppalante ba nga xam ne li ñu président de la république dénk ñu mën koo def ci anam bi gën a rafet waaye ak lu mu tuuti tuuti ak lu mu néew néew lu ñu jox nañ ko def ba mu rafet bu ñu ko defee ba mu rafet rek li ñu yelloo ku nekk danañu ko delloo ma terminer rek féliciter leen féliciter agent yu nekk ci ak bépp yëpp bàyyuñ kenn xeebuñ ci kenn parce que lii du liggéeyu directeur général bi rek ou bien président de conseil de surveillance la équipe bi yëpp moo nangu xayma nekk benn te bu ñu nekkee benn rek liggéey bi yemb benn boobu ñu nekk ñoom agence de la construction des bâtiments et édifices publics ma bëgg exemple boobu mu law ci sumay direction générale yëpp ba ñëpp nekk benn nga xam ni mission bi kenn rek a ko yor muy président de la république te buñ koy liggéeyal ñu ñoo war nañoo rafet xol rafet njort ba nga xam ne lépp lu ñuy def ñu mën ko defandoo ma leen di leen sant. ooy ganaaw sant yàlla te si jiinalu ba tedd bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam euh, ñu ngi parce que yaakaar naa ne agent de construction des bâtiments édifices publics gi moo ko moo ko bëggal boppam taxawal ko. Euh, parce que daf dañu waroon euh, am structure bu mel noonu bu xam autonomie gestion administrative gestion financière pour gën a saytu liggéey bi pour gën a am ñoo gën a xarañ ci Sénégal ci bâtiment ci tabax. parce que ñun autonomie financière bi ak autonomie administrative bi daf ñuy permettre de recruter ku ñu bëgg en fonction de profil bu ñu bëgg et ça c'est extrêmement important et donc par conséquent l'idée c'était de réduire les délais de construction et surtout de les respecter mais surtout de euh, xaalis réew mi ñu utiliser ko ñu ñu ko war a utiliser mu euh, awee beaucoup d'efficience et d'efficacité je pense que l'agence euh, mun na wax ne mu ngi ci tànk boobu parce que sans projet yu ñu jëloon ci agence de direction de construction générale boo xam ne moo yoroon construction réew mi presque mun nañu wax ne euh, juróom-ñaar fukk ak ak juróom presque presque féet na boor joxe nañ liggéey nañ ko baax na joxe nañ ci seen seen borom léegi nag am na 25 bu des 25 yi am na 12 yu xam ne euh, borom borom tabax yi ñoo bëggatul tabax bi parce que yeneen priorité la ñu am euh, et ensuite yeneen 13 yi ñu ngi koy liggéey et incha allah rabi avant at 2021 bi jeex danañ ko livrer seen borom. merci